bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain mbokk mi laaj ne na ab jaaykata gi nii boo xam ne day def at mu jot mu xayma génne asakaam waaye nag am ci bagage yi muy jaay bagage yoo xam dafa lamb ay at a at mu jot mu xaymaal ko génne la ko asaka waaye taxul mu jar ndax day wéy di ko xayma at mu jot wala déet ngi tontu mbokk moom ñu wax ko ne fii ak mi ngi koy jàpp ne ci marchandise mi muy xaar njëg la day ko génneel asaka at mu jot da koy xayma génne ko lu dul ne dafa dem ba yàqu amatul njariñ wala boog moom mu génne ko ci njaay mi jàppeetu ko lu muy jaay waaye denc ko jàppee ko moomeelam nga xam ne jaayetu ko bu nit ñëwoon di jëfay njëg du ko jaay soo waaye asaka dootu ci war fii ak mi ngi jàpp ne njëge ko fu bàyyi at mu jot da koy génneel asaka da koy xayma génne waale ko wallahu taala alam